jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen seen leader bi di people di nuyu sunu kilifa diine ak sunu kilifa aday di ñaan réew mi Sénégal yàlla sunu borom doole jàmm euh, di ñaan yàlla na yàlla sunu borom nangul ñu sunu koor comme ni ñu ci duggee ñu génn ci alhamdulilah rabbil alamin di ndokkeel sunu mbokku catholique yi nga xamante ni seen koor gi jeex na yàlla sunu borom def jàmm ci réew mi. tey nag euh, people 221 comme ni ñu leen waxee rek chaque jour day dugg ci banlieue bi chaque jour day dugg ci askan di xool jafe yi nga xamante ne askan wi ñu ngi koy dund Euh, tey nag ñu seet sunu benn frère mu di Kalidou fas yéene seq ak moom waxtaan parce que ndaw la yàlla am nu mu ko jaglelee ci ay cëram mais teewul mu am jom nangoo liggéey ah, moom lañ seet si fii fas yéene seq ak moom waxtaan frère dama lay bàyyi nga nuyoog ñii di la suivre. maa leen di sant di leen gërëm. Mhm. waaw di sant képp ku may suivre daal képp koo xamante ni da bu fi may jaay fii. maa lay sant di la gërëm ndax am naa ñi bari dañ may encouragé si ci li may def ni ñu bari dañ ma ci encouragé ndax li may def ni métti na méttaay boo xamante ni. d' accord xam ah. xam naa xam xam naa dinaa ñëw foofu. Euh, d' abord euh, mën nga ñu wax kan mooy Kalidou euh, ci jaar-jaaram. man nag kal man maay Kalidou Hann waaw juddoo Goudomp màggee Ndakaaru Dakar nag laa màggee man presque Goudomp sax presque xamu foofu ndax man Dakar laa xam Dakar laa màggee waaw moom mooy Kalidou Hann koo xamante ni. su ma sañoon de duutalal ma loxo ndax la te lii lii ngeen gis ne lii ci lii laay yëng ci dama yor cinq gos juróomi doom laa yor juróomi bant laa yor te alhamdulilah rabbil alamin waan man njëkk naa kaa def def naa ko ndax doomu aadama yàlla rek mooy tax ngay wax def naa ko mais même ni ma koy doon defee neex ma sama biir xol moo tax ma créé liggéey bi waaw ah liggéey bi na léegi alhamdulilah rabbil alamin maa ngi ci yàgg bu yàgg naa ci torop moo tax na su ma sañoon képp koo xamante ne da dimbale te yàlla rek tax nga dimbale ma ma mun a avancer ci liggéey bi parce que liggéey bi bëgg naa ko waaw bëgg naa liggéey bi waaw. d'accord euh, damay ñëw ci li nga xamante ni mooy li nga wax sànq yalwaan bi. waaw euh, yalwaan bi naka la demee ak ak ak lan moo tax nga jékki-jékki bàyyi ko. yalwaan man tàng xool doon laa ci doon am. tàng xool doon laa ci doon am. am na nag am na am na am na doomu aadama ñëw ñu bari wax dëgg yàlla sénégalais ñëw gore. wax dëgg yàlla gars yi ñu gore lañu alhamdulilah rabbil alamin léegi léegi nit fekk la fi ngay jaay fii mu woo la jënd ci yow ba yëkkati dara may la léegi léegi tamit nit ñëw fekk la fi ngay jaay mën na la kaay nga ñëw yaakaar day jënde mu yëkkati dara mu jox la. d'accord léegi ci yelwaan boobu noonu yan jafe-jafe nga ci doon dund. alhamdulilah jafe-jafe mooy dund ci yelwaan bi boobu parce que yéen doo leen yelwaan yéen mënoo leen kaa xam. waaye samay mbokk ñi ñi nga xamante dañuy yelwaan wala boobu da nga leen seetaan yéen ni tamit ñoom xam nañu yelwaan lan moo ci nekk waaw yéen mënoo leen xam loolu waaye yelwaan ñun ñi ko mës a def xam nañu lan moo ci nekk waaw. Euh, lan moo ci nekk ça veut dire dafa am ay risque wala dañ lay jox euh, xaalis di la. lan moo ci nekk en fait dafa bari risque yi yelwaan dafa bari risque yi en fait léegi léegi nit nga gis kenn mënul wax daal li li ci biir quoi waaw parce que gis nañu fii lu nekk. waaw sant yàlla daal waaw xeebu ma ñuy yelwaan tamit nag xeebu ma leen parce que man jaar naa ci ba pare handicapé la te bëgg naa tay gi képp ku sama mbokk handicapé boo fekkee bu bu fekkee man ngaa yëngu bu fekkee mën ngaa def comme li may def nii nga def ko ndax lan àdduna on sait jamais kenn du ko nekk tey li nga liggéey moom moom lañ lay fay ëllëg. lan moo la motivé pour nga dugg ci jaay bi. jaay mi dara comme li ma la wax rek waaw njaay mi man maa xool ba mu neex ma ma jekke-jekke benn bis ma xëy dem yelawaan ñu seddoo ba pare comme sa ni ngeen toogee ni ñu seddoo ba pare kenn ku nekk am li nga am ba pare man leen gars yi eh, pourtant man eh, pourtant man dama bëgg a jaay dama bëgg a liggéeyal sam bopp ñu ne ma yow nga xëy amoo leneen amoo dara lu dul 8000 francs nga ne ma yow da ngaa bëgg a liggéey yow da ngaa bëgg a liggéey man leen gaay man Kalidou Hann ci 8000 francs bu mu am nii bu soob yàlla ci moom laay fas yéene liggéey ba li yàlla suñu borom def waaye bu soobee yàlla bëggatuma ñaantuma yàlla suñu borom ñëw fii fi ngeen nekk nii nga dama yelwaan waaw ma jël wii mi faram foofu wii mi faram noonu ma dem jënde ko bagage jamono yooyu lii moo am quoi liis ma dem jëndee deux paquets ak benn misoir ma ñëw ma jaay ko tafta gaa yi jàpp ci ma ma jaay ko tafta ma am douze mille wii mi faram wala ma am douze mille ma demaat dem jëndewaat encore ma dem jëndiwaat encore ci moom laa nekk ne moom moom laa nekk tey jii alhamdulilah rabil alamin maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax moom laa dundalee sama njaboot am naa juróomi bant waaw. ci njaay mi commencement bi est-ce que yomboon na. métti woon na trop ndax métti woon na trop ndax ba ñi ma dekkal si kër gi sax da ngeen ne waaye yow kii day soob kii lu muy def nii kii day soob kii xam ngeen ni waaye yow xam ngeen ni kii kii daa bar tiitar lii mënu ngaa continuer te alhamdulilah rabil alamin ba tey loolu moo ma gën a yokku fit moo ma gën a yokku jom ma gën a jàpp ma gën a def affaire bi ba tey alhamdulilah rabbil alamin mu nekk ci affaire yi waaw loolu moo tax na maa ngi bu baax sant ñëpp sant ñëpp daal mënuma boo limee da ngay juum waaw sant. est-ce euh, que tey ci njaay mi condition yi. waaw parce que ci tali bi. waaw euh, mu metti lool. Euh, yan jafe-jafe wala yan condition ngay jaayee ci tali bi aussi. alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla bu baax. xam nga yéen sax bi ngeen ñëwee sànq gis ngeen waa gi nu ma mbokkee. Mhm. mu ne ma pang mu ne ma maa ngi jégalu ne ma baal ma. Mhm. mu ta waaw parce que su ma toogoon sama kër yooyu yëpp xëy na du ma ma jot quoi. Mhm. mais comme ginnaaw ñëw naa ba fii fas ne damay liggéey lu ma fi daan rek lu ne alhamdulilah bi jaay mi damm naa ci ñaari yoon. damm nga ci. damm ci ñaari yoon. ci nan ci naka waaye. benn bis dama ñëw fii liggéey ba di wàcc dem ba pongaan maa ngi ñibbi si sama moto di pongaan nit mbokk ma ci si ginnaaw ma daanu sama loxo bi damm. sa loxo bi damm. waaw gisoo gisoo bi nu mu mel. xam nga ni loo ko bu jëbukaay du mel gis naa ko waaw ah, ok. ma jël ma côté côté encore jël ci jël ci li ma ma financé ko ba ba ala yàlla suñu borom def ma wer ma nekkaat encore ci tali bi. maa découragé ndax lan dama lii ma gis nii gisuma ah bariwul si sénégalais boo xamante ne damay ne li may def nii noo ñi may suivre yëpp dañu may def li may def nii yes lañ may wax donc yes boobu noonu moomu laa fas yéene mu woy. boobooy première damm bi. waaw deuxième damm bi tamit deuxième damm bi tamit fii ci rond-point bi fii fii fii ci rond-point bi fii dama dama yore bagage àll bi mu ngi taw maa ngi daw pour dugg ci pom bi pour sama bagage xam nga bagage bi kii la kawsu la day bu tooyee day yàqu mm-hmm. donc maa ngi daw pour dugg ci pom bi waa ji ngi daw dawal otam jóge fa la ñëw mu mbokk ma tamit ma daan waat loolu loko bi dem maate encore ci même damm bi waaye sant yàlla na sant yàlla bu baax waa alhamdulilah rabbil alamin léegi moom yor naa bu baax waaw maa ngi ci maa ngi yëngu te du ma tax a découragé incha allah. à part loolu yan jafe-jafe moo lay gën di marqué yoo xam ne da nga koy dund fii ci tali bi. jafe-jafe bu may gana a mooy su ma demee su may génnee di dem di dawal sama moto ma gis samay mbokk handicapé yi nu ñuy daj ak ñeneen ak ñeneen wala nga gis léegi-léegi nga gis koo xamante ni mu leer na leer yàlla ni kii ba mu doon ndaw la ko sóoraale wuloon ndax bu ko sóoraale woon ba mu doon ndaw. xëy na bu magatee du daj du daj yenn yi loolu laal moo ma gën a marqué ci ci sama liggéey bi saa su ma bëgg a découragé liggéey bi rek damay xalaat nii ah xanaa man su ma bàyyee sama liggéey bi damay dem encore tallat ma ay morom lokk ma gën a encouragé loolu moo ma gën a loolu moo ma a marqué ci sama liggéey nag waaw saa su ma xalaatee nii lii su ma ko deful rek aw ma la aw dara aw ma boo xamante ni dinaa ko def pour ma mun a am ci li ma dépensé damay gën a encouragé parce que dama yore njaboot te fa fa fas yéenu ma dem ñaan ñaanal leen pour ma ñëw ma jox leen. d'accord nit nag bu ma fekkee fi fi may liggéey te ñaanu ma la nga nga yeggati dara nga jox ma dama koy jël parce que damay xam ne yow danga maa yéenal loolu moo tax nga jox ma. d'accord naka ngay dundee ci tali bi ak sénégalais yi parce que euh, euh, des fois du ñàkk nga bëgg a jàll sax wala des fois nit nga war a romb sax nit ki ñëw di la di la koñee naka ngay dundee ak sénégalais ci tali bi. métti rek métti rek loolu kay métti la dañuy saagante nday rek ay loolu moom sénégalais yi ngeen baal ma baax am na xam na am na ñoo xamante ne. am na ñoo xam ne dañuy saaga. dañ may saaga nday dañ may sànni logo. oh mais barki Serigne lay waatal na dañ may sànni may sànni xoolal fii li yàlla xam doy na. waaw waaye sant la rek sant yàlla rek waaw. lan moo tax ñu lay saaga. ah maanaam da la leen ne da ngay da nga leen di baare wala da nga leen di koñe ba ci sax ba ay autorité sax. autorité ay autorité sax. boo oh. la police de mais am na ay. ñaari ba fii fekk man mooy liggéey sax dañ may sànni la ko sax eh sangam sangam léegi-léegi damay aalu parce que man moom aalu moom ji moom mooy loolu soo ma defee loolu la ma war a def rek damay gis sam bopp. Mhm. te su ma ci aaloo ba ma ci paree pare naa ci. Mhm. ndax bàyyi fa la aw ma aw ma dara lu nekk sama biir xol. Mhm. waaw loolu nag moom wax dëgg yàlla rek waaw ñi ma ñi nekkal. ñoom xam nañu lan lan fii fii naka la. Hmm. dafa métti métti boo xamante ne alhamdulilah sant yàlla bu baax. waaw comme ginnaaw maa ngi ci fort dépense du ma dem tàllal sama ay morom logo. Hmm. loolu moo ma fi baay d' accord waaw d' accord léegi. Euh, naka ngay naka ngay mën a jugee euh, Dakar ba yëmbal chaque jour di pétale euh, loolu laa bëgg nga am loo ma ci nettali rek. sant yàlla rek waaye ginnaaw sant daal di ci ci biir sama yëngu bi am na du ma fi dajale woon ba yàlla suñu borom may ma. ma am moto moto handicapé yi bien sûr moto bi chaque jour mu ngi garage ndax moteur bi baaxul te moto moto moto occasion laa jëndee. waaw oh, oh. tamit maa ñaan yàlla si maa ñaan sénégalais. ak aduna ñu jàppale ma am moto bu gën a baax sama bi mayor ndax bi mayor yor laa laay ñibbi. d' accord foofu noonu du ma la dog foofu. dinaa fa xaw a leeral tuuti parce que li tax ma souligner loolu mooy. day jugee ba yëmbal. man maa ngi jugee ba Malika te moto laa yor. di ñëw Dakar te damay am ay coono man. donc moom mi nga xam ne handicapé la day jugee ba yëmbal. di dawal moto. wala euh, di puus ba fii Dakar. day métti moom. donc foofu noonu pour ma bañ ko fàttali ñi nga xam ne mën nañ ko jàppale ci moto. pour muy mën di dawal di mën a liggéey parce que ndaw la mais day daan dooleem. dama ko doon souligner lool rek mën nga yeggali. waaw ah, loolu moom su ma ci amee moom dama ci dama ci kontaan trop grand. parce que sama moto bi chaque jour mu laa lay wax ne ñaari fan ñetti fan lu nekk da nga war a financer au moins dix mille francs te boo xoolee njaay mi demeewul noonu. te wax dëgg yàlla su ma sañoon ñu jàppale ma ci li may yëngu nii mu gën a jëm ci kanam quoi franchement. parce que bëgg naa loolu trop bëgg naa ñu jàppale ma ma am moto. d'accord bien sûr que fi ma nekk tamit location laa nekk te location boobu métti laa nekk parce que boo xasee ba nga njaboot dootoo mun a yenn nii quoi. waaw bu fekkante man ki kese la woon man naa ñëw Dakar comme samay morom ni ñuy def man ñaanu ma ko yàlla suñu borom lu mu métti métti métti métti ma am lii ci moom laay dem dem fay location. naka ngay naka ngay dundee ak sa njaboot ku ne xam na ne Sénégal. Euh, ñaar yi daanaka duñ ci ànd ak nit mooy ñakk wala wala wala wala laago Sénégal ku ne xam na ne dañ lay xaw a xeeb. di la xaw a minimiser naka ngay dundee loolu ak sa njaboot. waaye moom sant yàlla man moom samay njaboot moom samay yàlla def na ne samay njaboot moom samay xarit lañu ku dul samay njaboot sax sama waa koñ yëpp samay xarit lañu. ndeysaan xëy na ñoo ñëpp dañu may seetaan ñoom Khalifa boo limee da ngay jum quoi. Mhm. waaw ñoom Yaama ñoom Cheikh fay ñoom ñëpp daal ba boo limee da ngay jum quoi koñ bi ñëpp daal sama xarit lañu man man pour man man aw waaw pour man aw ma noonu ndax léegi-léegi tamit handicapé boo xoolee ni nga mel ak sa melokaan bi ni nga mel léegi-léegi bu fekkante amoo amoo tuuti xel da nga yaakaar ne da nga laa xeeb fekkee ñu la. kenn ku nekk ak ni la yàlla suñu borom bindee waaye man moom ci côté boobu moom maa ngi yàlla bu baax ba alhamdulilah rabbil alamin d'accord tey ci say rêve loo xam ne yaa ngi ko doon rêve ci euh, yàlla sunu borom du ma ne defagu ko mais yàlla sunu borom ëndegu ko tey boo ñu doon nettali loo xam ne ci say rêve la loo xam ne doon nga ko mbébét chaque jour dara li ma gën a bëgg mooy li ma gën a rêve mooy sama àdduna mooy sama ay njaboot bu ëllëgee ñu mun a ñu mun a munal seen bopp mm-hmm. a ñu bañ a ñaan seen ñu mun a mënal seen bopp loolu moo tax may liggéey li dama bëgg bu ëllëgee samay vidéo samay doom bu ñu màggee bu ñu màggee bu ku ñu jàngee ba yàlla suñu borom def ñu màggee ñu dugg ci internet yi bu ñu gisee sama ay sama ay photo wala sama ay vidéo ñu bañ a rus ñu xam ne ni li may def ni ngir ñoom ñooy tax may def li may def ni hmm. li may daj tamit ngir ñoom ñooy tax may daj lii am na solo samay doom bu ëllëgee nañu xam ne li may daj ni ngir ñoom ñooy tax may daj lii bañ ñaan moo tax bañ ñaan ñëw jox leen loolu moo tax may daj ci li may daj nii. am na solo am maa ngi ci sant yàlla bu sama lépp mooy sama sama liggéey gën a jëm ci kanam ba boo xamante ne dama dinaa am loo dinaa ko mën a sukkandikoo ba mun a jàppale sama morom man tamit. am na solo tey ban message ngay lancé handicapé parce que tey yombul nga gis benn handicapé boo xam ne day xëy di liggéey. waaw oh, ban message nga leen di lancé. ñooñu ay jàmbaar lañu soo limee damay juum. nga sama moto bu may dawal sama bonam sama moto bu may dawal. handicapé moo koy defar. handicapé moo koy defar moo koy defar. mu ngi tudd Mafal xëy na yéen xamoo leen ko waaye boo waxee Mafal rek ñu bari xam nañ ko ak ñoom Bas man garab moto bu may dawal handicapé moo ko defar laa moo ko modifié. comme comme Zaaru ñoo ngi noonu Sénégalais waaye ba leen seetaan da leen a war a jàppale da leen a war a jàppale seen handicapé jàmbar la garab handicapé borom xol la handicapé jàmbar la handicapé borom xol la. handicapé borom xol boo gisee handicapé nga xam ne borom xol la handicapé loolu mooy handicapé ndax nit ku bañ kese mooy doon handicapé nit ku dul bañ du du doon handicapé moom. waaw côté boobu maa ngi sant bu baax mu di wax ñëpp képp ku sama mbokk handicapé ak foo mënta nekk rek da ne del maîtriser te del muñ te del def li nga man del góorgóorlu nga def li nga man ndax àddina moom kenn mënul dara ñun ñëpp dañuy si sababulu rek mais kenn ku nekk ci li nga man dañ ci sababulu nga bañ xaarees nga bañ ko xaaree kenn waaw samay morom handicapé yëpp maa ngi leen lancé message boobu noonu nañ gën a góorgóorlu gën a muñ xëy na incha allah ça va aller yàlla baax am na solo mu ngi noonu ah. moom laa daloon fii. Ah, di leen wax képp koo xamante ni bëgg nga ko jàppale. numéro téléphone am mu ngi noonu di daw ci réseau bi. a ah, dinaa ci témoigner tuuti nag parce que maa ko fekkee li muy dund fi métti na trop. tali bi ñun ñi nga xamante ne sax ay tànk di dawal tali bi day métti ci ñun. asama ki nga xamante ne handicapé la mu ngi koy wax léegi des fois mu dajeeg ay nit ñu koy saaga ci tali bi des fois ci ay liggéeyam damm na ci ñaari yoon donc yooyu yëpp mu nekk ay risques yoo xam ne mu ngi koy dund mais teewul mu gëm ni euh, handicapé nit la handicapé dafa war a liggéey handicapé euh, dëgg la ku nekk ak cër bi la yàlla séddee mais tey moom souligné na ne handicapé dafa war a liggéey donc euh, képp koo xamante ni bëgg nga ko jàppale numéro téléphone am mu ngi noonu di daw ci service commercial bi nga woo ko jàppale ko surtout nag li nga xamante ni mooy wàllu dem beeg dikk bi. parce que ki nga xamante ni yëmbal lay jógee di pétale ba Dakar ak weeru koor gii yaakaar naa loolu coono la te loolu dafa metti lan moo ko yóbbee liggéey ak daan dooleem ak bëgg lu mu yóbbu këram. donc ñi nga xamante ni mën nañ ko jàppale ci wàllu moto boo xam ne da koy dawal di ci xëy ah ñu ngi leen tàllal loxo incha allahu rabbi dinañ leen ko toppalaat. Euh, frère kontaan naa. Ah, am naa mbégte dalal la aussi tamit. Ah, euh, tey lan ngay tàggatoo. ginnaaw bi ma sant yàlla d'abord sant sénégalais ñi may jàppale ñëpp sant àdduna xam nga boo waxee sénégalais rek am na ñoo xamante ni dëkkuñu Sénégal parce que dama am ay ami ñoo xamante ni dañoo nekk. àdduna ñëpp yow ñëpp la ñëpp daal man ñëpp man man tamit ñëpp laa bëgg daal. ndeysaan waaw mooy Sénégal waaw mooy yëpp. ndeysaan àdduna bi yëpp daal àdduna bi yëpp daal maa leen dalal la ko am na solo waaw pour ma mun a gën a avancé comme samay morom ba ma mun a dimbale samay morom li may gën a tàggatoo nag mooy samay njaboot d'abord maa leen di ziare yéen ñëpp ñu nekk ci kër gi ñoom yéen ñëpp maa leen di ziare ak samay dëkkandoo ñëpp maa leen di ziare mhm. su ma waxee dëkkandoo rek bàyyi ma soose bi bàyyi ma pol bi bàyyi ma joolaa ñi ma dëkkal ñëpp daal maa ngi leen di jaare di la neewoon waaw lii sama ay sama ay gars ma sees yoon tey alhamdulilah rabbil maa ngi leen sant yàlla bu baax tamit sant naa leen jërëjëf sant naa leen bu baax a baax ndax ngeen ñëw rek ngeen romb ngeen dem seen yoon non non mais boo depuis boobaa yow yaa ngi may woo téléphone ngeen baal ma tuuti ci kàddu am na ñoo xamante ni moom am na am na ñoo xamante ni moom xam naa ni duñ fi ñëwaat moom waaw waaw ok am na ñoo xamante ne dañ lay dañ lay utiliser loolu nag sénégalais yi bi loolu doon lu ma nakari toro waaw dégg yàlla loolu doon lu ma nakari toro. utilisé bi waaw da ngay gis waaw gars yi dañ may utilisé dañ leen di ah. jàppale alors que. waaw waaw dégg yàlla doon li ma nakari toro ci sama biir xol ba ba tey am na ay vidéo yoo xamante ne su ma leen gisee ci internet bi sama xol da ciy bon. demal li te boo ci sama xol bu ci bonee li ma leen ñaanal yàlla suñu borom yàlla xam na ne du du doon lu baax laalaan du ñëpp nag du ñëpp. Hmm. waa télé citoyen laay waxal. du ma ko fen du ma ko nëbbu waa télé citoyen laay waxal. parce que ñoom a ma waxoon ñoo waxet te doomu aadama ñu as ngor kaddu la nit lépp loo ko dul defar da nga koy wax loolu moo gën rafet. am na solo tey jii bu ñu newoon comme ça ni nga ñëwee nii comme du ma fi nekke di wax kii nangam sangam parce que man xaw ma loolu man aw ma xol boobu sax. waaw la télé su taay laay waal. Adja Ndeye Anta Thiam yow laay waal Adja Ndeye Anta Thiam yow laay waal du ñëpp de Adja Ndeye Anta Thiam yow yaa wa yaa yaa ñëw ci man nga wax wax wax wax wax bu dul jeex ba ñu def vidéo bi ba tey gisuma la yeguma la xamuma la waaye yàlla am na de yàlla am na de am na de ni nga may gisee ni ci internet bii nii la la yàlla di gisee yow tamit nga xam ne asalaamaaleykum wa rahmatulah. am na solo am na solo mu ngi noonu ah di leen jox dig daje. Ah, ci sunu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf.